man maa ngi tudd Babacar. waaw Babs nouvelle technologie waaw. Mhm. alors Babs euh, Sénégal bu ñu waaj élection législative yi nga xamante président daf ko mhm. euh, bi daa bëri trop ci biir campagne bi gis nañ attaque bi nga xamante attaqué woon nañ ko siège ñi nga xamante ñooy taxaw wàllu mais gis nañ également li xew Koungheul ba mu am ay gaañ gaañ yow lan moo ci sa gis. waaw euh, foofu gis-gis bi dama koy commencé ci population bi nga xamante nii. tey bu ñu nee Sénégal la population sénégalaise moo tax population sénégalaise nag du politicien bi du tey jii ka nga xamante nii ci këram la toog di maanaam du du du kilifa gii wala kilifa gii wala kii mais ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal il faut sénégalais yi xam loolu ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar ñoom peuple bi ci boppam ñu nekk une peuple bu nga xamante ne nii dañuy yeewu xam ne lii ñuy def di indi ay violence wala ñu leen di xeexloo wala ñu leen di fay aduna jaruko ko surtout ndaw ñi ndaw da ngay fight sa life da ngay dem nga liggéey même bu fekkee da ngay gagner 1000 francs par jour nga gagner ko dignement moo gën gars yi di la topp nga leen di escorter entraîner ba am sa doole yow doo ko utiliser dara dara dara dara lu nekk videur léegi boo xoolee particulièrement Sénégal jeunes yi entraîner yëpp topp ci ginnaaw politiciens yi la ñuy nekk di xëbër xëbër yeeg yooyu bu xeex jotee ñu xeexal leen te ñun ñëpp ay ay ay sénégalais lañu ñu bokk ndey ak baay. Nous devons éviter d'abord parce que politiciens pour dire vrai vérité, sommes seen bopp de fi pour propre intérêt il faut donc nous, ñu que le Sénégal du pour nous. pour sénégalais nous devons faire dañu fee à ay njaboot suñu devons yi libre ba ay Sénégal Si sanctionner ñu vote jot ñu dem sanctionner sanction boo xamante Nous ni sanction sévère peuple mais man ni ma gisee Sénégal dama commencé tiit parce que tey violence bi da nga koy gis au côté de l' opposition da koy gis au côté du pouvoir nan nga koy gisee au côté de l' opposition comme la fois passée ni Bougane defoon ñu gis la ngay dem ñu ne la taxawal président moo nekk foofu nga ne non da ngay dem di forcer loolu violence la ni ma ko gisee au côté du pouvoir su ma sañoon sama président Ousmane Sonko premier ministre moom par exemple yenn dossiers yi nga xamante ni dafa nekk ci wàllu justice comme moom def na benn fu fugg de kii ba jël réew mi ñu àndoon ceeg moom tamit nag voteel ko bu ñu sañoon maanaam day am yenn yoo xam ne da koy bàyyi ak justice bi ñu ciy communiquer moom muy communique ci les actions di gouvernement yoo xamante ni par exemple affaire dund bu cher beeg affaire yooyu ñu ciy waxtaan pour nan lañ ciy wute solution quoi mais pas par exemple des fois nga xaw a woote nga xaw a wax. diw bu benn rapport génnee nangam bu génne bi bu bu lii génnee noonu man loolu franchement xaaruma ko ci pour vous dire vrai damay bëgg communication yooyu ministre de la justice di ci communiqué wala cabinet wala yu mel noonu moom mu nekk ci gouvernement bi ñi nga xamante ni ñooy peuple sénégalais bi ñu yeewu encore une fois bàyyi xeex bi ñu leen di xeexloo bàyyi dóorante beeg jaasante yeeg yooyu ñuy def amul njëriñ jeunesse bi dem leen ngeen liggéeyi dem leen ngeen gëm seen bopp ngeen liggéeyi bu vote jotee ngeen voté sanctionné gars ko koo ni daf la daf la tek toor ñu sanctionné len gis nga gouvernement bu ñeuk bi fi nekkon kenn mënu leena défendre dañoo yàq Sénégal dañoo yàq Sénégal mais gouvernement bi fi ñew il faut ñu am maturité tamit ñom ñu apaiser waat euh, situation réew mi bu ko defee nañu mëna top topp ñooñu kenn ku ci nekk la nga lekkoon nga goxiko c'est ça le problème mais bu ñu leen toppee ñoom opposition bi ci li ñu bëgg su boobaa ñoom seen liggéey mën na sooxe te dara du ko sooxe lu du violence bi may gis violence bi pour man daal ki nga xam ne moo nekk au pouvoir moo ko war a gën a mën a éviter di woo ay euh, partenaire ay kiiwam ay ay ay ay ay kiiwam ci ci ci la calme su ko defee ñu dem passé ay élection yu yu yu yu jaar yoon ndax tamit euh, bu fi violence amee rek seen bopp lay yàqal joomaay lay yàqal vraiment lool laa gisoon foofu mhm. yow euh, da nga jàpp ne sànq wax nga ne ba jàpp nga ne Ousmane Sonko da yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci wàllu justice bi da nga jàpp ne Ousmane Sonko xaw en tout cas euh, dugal loxoom ci wàllu fonctionnement justice bi. non non euh, c'est pas que day jël ay kàddu di ko yëkkati ci wàllu justice bi yëkkatiwul kàddu jëmale ko ci justice bi maanaam ñi nga xamante ni xëy na rapport da leen di épinglé wala rapport épinglé leen par exemple yooyu lay génn des fois di ko dénoncer ne dina am loo xam ne dana xew ak yooyu noonu. loolu noonu ñun mën na ñu man fi mu nekk nii pour man yooyu yëpp ñun xam nañ ko ba pare gis nga li tax ñu jëlee fi ñu fi jógee ñu fi nekkoon parce que dañoo xam ne ñii ay sàcc lañu comprendre nga dañoo caxat caxatee Sénégal donc kenn mënatuñoo wax ci ñun luñ ci ñoom lu ñu gisul li ci des nag mooy que ni nga nga nga nga nga nga liggéey liggéey boo xamante ne nii par exemple da nga leen di topp nga xamante ne du am biir wi daal topp leen jëlaat suñu alal nañu mu ngi nii li ñu jëloon ci gars yi mu ngi nii communication yooyu noonu di jaare ci ministre de la justice parce que ministère bu nekk dafa am lu ñu ko chargé euh, je pense donc nag kenn ku ci nekk ci li liñ la chargé dee ci communiqué moom premier ministre muy fexe di dajale kii yëpp di wax surtout ci mettitu dëkk bi ni mu metteek yooyu di ci di ci di ci kii quoi te wax ji di xaw a néew tuuti quoi moom moo gën waaw li ñuy jeexale mooy gannaaw violence yi nga xamante amoon na fale ci Koungheul euh, dañoo wàcce ki nga xamante mooy commissaire Koungheul bi ak Kaffrine mu nekk ay sanctions yi nga xamante dañ ko jëmale ci commissaire yooyu yàlla moo ci sa jàng gis-gis waaw xam nga am réew aussi il faut muy am sanction ñun nañu bàyyi ku ñu sanctionné rek ñu ñuy ñuy jéem a moraliser di la di jéem a dugal ay sentiment ak yooyu gis nga réew dafa war a am ay sanction nit bu wàccee yoon dañ ko war a teg ci yoon bu fekkente ne ni violence yi am foofu ñoom gis nañu ne lii police wala gendarmerie moom moo waroon a nekk ñi nga xam ne ñoo ko waroon éviter loolu amul ba loolu am mais ñooñu dañu leen war a teg sanction yoo xamante ne nii ëllëg ci si biir seen morom bu gisee loolu dina addu balaa loolu di xew c'est ça réew day am sanction muy man muy yow mii di journaliste bi muy keneen ku ci wàcc yoon il faut sénégalais yi accepter ñu sanctionner la nit di dawal sa oto amoo permis féer nit gars yi di dawal ay sentiment loolu c'est pas euh, euh, du réew tubaab yi liñ ñu rawee lenn donc la mooy sanction gis nga sanction peuple bu bu ñu gën a mën a sanctionné peuple boobu moo gën a mën a yaru comprendre nga mais ñiy sanctionné waate nag na ñuy fexe ñoom it ba jiital yar ñoom ci seen wàllu bopp bu ko defee ñi ñuy sanctionné dinañu nangu ñu sanctionné leen c'est ça problème mais sanction yi nañuy bàyyi di ci na nañuy xool lan mooy base sanction bi ak ki ñu sanctionné lan la def ba xam mérité na koom déet si daf ko mérité ñu bàyyi di ko layal wala ay wala yu mel noonu bu fekkee mérité wu ko nag bon ñu ñu ñu loolu sax mën mën nañu kii mais xëy na ñoom la ñu jot comme rapport que ni ñoom ñoo waral lool vraiment euh mëna nek lu wara jur sanction man nak je ne sais pas lutax ñu sanctionner len travail ah, la tout mami ma ngi exercer fi depuis très longtemps marché colomban fi alors ñu ngi wacc li nga xamant moy élection législative waye gis nañ ne violence bi commencé na bari ci walu discours bi moy acteur politique nga xamanté dañuy wax wax bu nga xamanté day wote violence waye tamit gis nañ li nga xamante moy siège Khalifa Ababacar Sall li fa amoon waaye tamit li amoon ku ci Koungheul ba mu jur ay gaañu gaañ lan moo ci seen jàngal. waaw yooyu boobu xam nga boo xoolee ñun ay dëgg-dëgg rek lañ ciy am ndax ñun moom demuñu dikkuñu ñun ñoom ñu ngi suñu koñ fii rek di taqale di liggéey xam nga boo xoolee violence yooyu ngay wax yëpp ñun dañ koy dégg mais ñun wax dëgg yàlla demuñu terrain bi bon des fois mu am ñu jaar convoi bu jaar ñëw def déclaration dem. mais yooyu rek lañ ci am ah, franchement. alors nan ngeen dundee euh, nguur gu bees gi ak dëkk bi fu mu toll maanaam ba est-ce que yéen a gis seen bopp donc. nguur gu bees comme bon day doog a door nii te bon installé gul bu baax mu ngi laaj majorité assemblée encore amagu ko bon on y peut mënuñu ko jugé gul quoi bon yaakaar nañ ne que ci kanam affaire dina dox dina ñëw mais ñun pour le moment daal ñu ngi daal toog di espérer di xaar. <laughs> loolu la ñuy xaar. donc pour l'instant da ngaa bëgg wax ne dese na dox daal. non des na dox parce que affaire yi ni mu demee woon dafa jëkki-jëkki rek stagné wu taxaw benn boor bon affaire yi ni mu daan demee demeetul noonu peut-être nag bon xam nga régime bu demee beneen régime ñëw ñu mënaguñ ko juger tant que ñun joxuñu ko lu mu bëgg lépp comme mu ngi réclamer assemblée réclamer leneen réclamer leneen te joxaguñ ko ko buñ ko joxee lépp nag ñu toog xool ko mu dawal tuuti ñu xool. boo fekkee affaire bi dox na ñu xam ba doxul leen gën a xam mais pour la moment nii moom mënaguñ leen a jugé parce ñoom dañuy doog a door loolu rek la waaw. waaye ci seen doxalin am ngeen yaakaar ne mun na euh, ñu changer li nga xamante moom mooy réew mi. ah man de am naa ci yaakaar moom wax dëgg yàlla parce que ñoom li ñuy teg ak li ñuy wax man wax dëgg yàlla man yaakaar naa ne que ñoom ku buñ leen bayee pousser leen tuuti may leen doole dina affaire dina gën a dox. man am naa ci yaakaar de wax dëgg yàlla yaakaar rek laa ci am nag waaw mais am naa yaakaar ci loolu. ban message nga bëggoon bon message bi may jeexale mooy ñu góor góorlu rek parce que affaire bi moom yombut parce que var gis nga ñoom fi ñuy jaar ba yegsi fi ñuy yegsi kon xam nga affaire yombut léegi jeunesse bi yëpp gën a góor góorgóorlu eh, violence yi ñuy wax ñu éviter ko parce que vraiment jam moo gën lépp élection yi dina jàll te Sénégal day continuer kon lu ñu yàq fii rek suñu bopp lañ koy yàqal kon donc nañ góorgóorlu eh, jéem a xam ne que Sénégal ñun ñoo ko bokk amul amul gauche amul droit ñun ñëpp benn lañu c'est-à-dire nag élection bu amee dina am ñi far fii ñii far fii ñii far fee loolu mënta ñàkk mais daal ñu gën a góorlu vraiment xam ne Sénégal suñu Sénégal bu ñu ko yàqee ñun lañu yàqal ñu góor góorlu yalla dimbali ñu lépp jaar ci yoon on y merci.